<laughs> ma jox kàddu gi loolu raat député Seydou Diouf yéene voté parrainage bi yéene loi bi yéene ci taxaw jàpp ci ba loi bi mujj a jàll dama lay bàyyi yow du la posé question mais dama lay bàyyi nga tontu rek. waaw mais maa président de la commission des lois je pense que il faut que ñu d' accord ci benn affaire et je hmm. pense que Moundiaye wax na ko Bamba wax na ko parrainage bi nekk na loo xam ne am na ay aspects positifs yu bëri. Euh, parce que Sénégal aussi war na weesu foo xam ne amuñu un système de rationalisation et de régulation des candidatures bu ñu fàtte ne avant parrainage bi dafa amoon ay élections législatives yu ko jiitu woon élection législatives yoo xam ne on s'est retrouvé à près de cinquante listes quarante sept listes mm avec jafe-jafe pour organiser ko ñëpp d'accord nañ ne élections législatives yi bëri woon na trop problème en termes d'organisation foofu la idée rationalisation bi génn mu tombé aussi que ne comme dañu nekk dans un système de multipartisme intégral et que malgré waxtaan yi nga xam ne jot na am yépp yegg seeguñu ba am un cadre de rationalisation de notre système partisan lu may wax ni ñoom mu njaay mi xam naa dina nekk nekk na ci seen proposition yi ñuy def mais yegg seeguñu foofu te à la gis nañ ko 2017. bi mu amee jafe-jafe ci élection législative dañ na pouvoir moo ko tey yàq élection yi pour mën a am majorité parlementaire waaw kon nag pouvoir bu demee ba tirer les enseignements ne dafay proposer un parrainage surtout un parrainage citoyen parce que parenage bi amoon na ci suñu constitution avant. Mm -hmm. mais c'était limité aux candidats indépendants. Mhm. waaw luy ndeyu. ñu ne da ngay dem ci même élection pour nekk candidat au même titre que les autres parce que une candidature à une élection présidentielle c'est une candidature individuelle mm-hmm. que nga bokk parti que nga nekk indépendant moi je un acteur politique hein li ma gëm mooy li réguler scène politique système démocratique c'est les partis man gëwma ay affaire ou candidature mais c'est une liberté qui leur est parrainage bi bu ñu ko xoolee ci élection présidentielle yi yéen journalistes yi boo leen naroon couvrir li fi naroon nekk ci candidat doo leen ko mën a couvrir vous vous avec cinquante candidats vos moyens techniques sax ne vous permettent pas def la couverture ça c'est basique donc parenage yi permettre na ñu am benn mécanisme de régulation pour se retrouver avec un nombre de candidats limité et li ñu war a def le distinguo mooy dafa am ñu bëri ñoo xam ne et je suis d'accord avec Baba dañuy wax mais amuñu benn représentativité. c'est que nee nañ faisabilité bi mooy poser problème. non parce que comment non, ça se fait dafa doy waar. non seulement dans la précipitation. non on fait l'évaluation et puis bon gis nañ également ça a amené un compliqué l'affaire. non xam nga nag. Hmm. une mesure quelle qu'elle soit une loi quelle qu'elle soit boo ko boo ko adopté di ko mettre en œuvre ci phase d'expérimentation bi mën nga am ay difficultés. parrainage c'était la première fois ñu appliqué ko mais ci évaluation bi de manière objective pluralité de signatures pour différents candidats gis nañ ko ci le problème du contrôle technique des signatures li ñu ci wax mais c'est la vérité il y a eu beaucoup de dysfonctionnements yoo xam ne constaté nañ ko mais pour autant hmm. est-ce que dafa tax ñu ne dañ koy bàyyi man gëwuma loolu hmm. li ma gëm mooy et on va vers des élections locales que le dialogue nous permette de s'accorder sur des modalités pratiques d'application parce que sinon élection locale ak tey coow li ni mu am ak nit ñi ni ñu jëlee mairie man jàpp naa ne sax boo demee suñu dëkk yi am na nit ñoo xam ne dañu jàpp ne mairie fowukaay la da ngay gis kenn ku toog fële amul quatre personnes mu ne damay nekk candidat on s'est retrouvé nous à Rufisque jee rappelle dernière élection locale avec presque vingt cinq listes dans la ville ci nekk ne damay nekk candidat tey jii boo duggee ci dëkk yi boo dëkk boo dem am nga ay mouvement yu créé wu pour l'action citoyenne pour l'émergence de ma ville pour l'accès et cetera non l'élection c'est une chose sérieuse léegi comme vraiment gis nañu élection locale ça coûte cher plus de communes wala quelque chose comme ça du genre mais lan la ñu war a mën a def pour rationaliser parce que la présidentielle est différente quand même des élections communales jafe-jafe xam nga Bamba léegi maa ngi koy dégg muy wax mu ne Euh, mën nañ sax identifier benn système de guichet mais naka la ñuy defee révision naka la ñuy defee inscription sur les listes électorales dafa am commission dangay dem ci commission indi sa carte ñu inscrir la nga gis sa tour ci fichier électoral bi bu jot bu génnee jotee ñu jox la ko pourquoi on ne peut pas envisager système bu mel noonu sur le parenage ne moo on met en place des commissions administratives yoo xam ne parti dañ ciy représenté wu c'est à superviser ko. c'est différent de la commission de Moundiaye bi muy wax wala. commission de Moundiaye c'est à un niveau supérieur. mais avec des organes décentralisés. voilà voilà commission Moundiaye c'est à un niveau supérieur te mun na am ay organes déconcentrés ça veut dire donc en réalité mun nañ am un système de commission de recueil des parrainages bu boobaa candidats yëpp ñi ngi ak ñi aspiré nekk candidat les partis. dañuy toog ci commission bi comme pour le contrôle pour l'inscription sur les listes électorales c'est des commissions administratives mais bu boobaa est-ce que aujourd'hui on peut contester à Babacar Dione qui vient dans une commission ne damay inscrit sur le le fichier électoral est-ce que mën nañ ko contester dès lors que indi na ne ko mën loo ko def le même Babacar Dione peut se retrouver devant une commission ne damay ñëw pour parrainer tel candidat et bu boobaa on complète le dispositif par mécanisme informatique loolu c'est des c'est des solutions qui sont là donc nañu waxtaan ci solution mais ala kuliyalin tey ak ni réew mi demee ak nit ñi ni ñu jàppee quelquefois élection comme fowukaay ba ku jóg rek ne dama bëgg nekk maire ku jóg ne dama bëgg nekk lii te alors que mbir yi dafa am ay vocation naturelle donc loolu mhm. il faut que ñu rationaliser suñu dispositif maintenant lépp ci waxtaan lay doon moo tax man may rafetlu li nga xam ne mu ngi waxtaan bi doon na ñu ngi ciy gis ay jéego ay avancées yoo xam ne majorité day lâcher des choses mais opposition aussi mu ngi lâcher des choses pour que nit ñi à la coulée ñu mën a am fu ñu fu ñu daje. mais li nga xam ne moo am solo mooy boo nekkee acteur politique aussi il faut participer au dialogue politique. parce que loo nekk acteur politique nekk ci mbedd mi di xarab bu ñu la woowee table de discussion pour indi ay solution doo ñëw. ba pare yow nga bëgg li nga xalaat ne mom ngay imposer askan wi pour mu mën a nekk. loolu moom la xel xanaa Bamba Fall. non non non ça c'est pas Bamba. d'accord je parle pas de Bamba Bamba est dans la réflexion. <laughs>